dellusiwaat tey di waxtaan ak yéen ci ni ko baaxoo di defee ci tolluwaay réew mi te nag waxtaan wi ci ñaari point lañ ko bëgg a yemale benn bi mooy jàngat gi ñu ci war a jàng gi ñu war a def ci discours président la république ak mesures yi ñu jël ñaareel bi di situation Covid 19 bi foofu ci Touba ak Mbacké donc ci premier point bi euh, président la république dafa waxtaan dafa def benn discours boo xam ne ci biir dafa jël ay mesures d'allègement ci les restrictions yi nga xam ne moom la xeex di xeex jàngoro ji. Covid 19 bi mu duggee Sénégal ba tey donc mu mu jëloon ko nag euh, il y a de cela deux mois dem ba ba démb ci altine yi mu ñëw defaat discours boo xam ne dafa daf koy wayfal ginnaaw bi mu jàllee nag mu am ñoo xam ne dañoo jël seen seen seen kàddu li ci am lu ñu ci wax loo xam ne dëppawut ak li nga xam ne moo am ñenn ñi dem ba tax ba naan président dafa dafa faillir à de protection ak leneen ak leneen. moo tax nag ñun tamit ñu bëgg a ñëw tey bu leeral askan wi ne ñooñu la ñu wax di way politique wala ñenn ñi dara amu ci ndax président jël na décision bi ci ni mu ko war a jëlee ak fu mu ko war a jëlee ak ak lépp moo dina ci départ bi nee na ba dafa jël xalaatu bon xam-xam yépp ci secteur yu bari mu permettre ko mu war a mën a jël décision bi ndax impératif sanitaire dafa am. waaye tamit enjeu social ou socio ak économique dafa am mesures demoon nañ ba toog na foo xam ne wax dëgg yàlla y avait une activité de l'économie mu am ay répercussions sociale extrêmement dangereuses ndax nit ñi demoon nañ ba amatuñu ñenn ñi metti woon na ci ñoom mënatuñoo faj seen soxla ñenn ñi sax dem amatuñu lekk donte xam nañu président xam gi mu ko xam moo tax muy mu jël dund gu bëri parce que ne ko yox mais tëriwul rek am na ñoo xam ne sonnoon nañu sonn googu ñu sonn nag tax na économie bi bi taxaw activité économique yëpp wàññeeku dem bëgg dikk bi ci bëri wàññeeku ba tax na ñoom ñu sonn sonn googu nag lu moo tax président ne naa jël ay mesures pour man koo alléger man leen nag ubbiwaat ne yenn restriction yi ñu defoon ci marché yi ci heure yi ak ci fan yi mu ne naa ko dindi pour ñu mën a dellu ci seen activité pour mën a faj seen i soxla ba nga xam ne nii danañ mën a dund normal ba lii ñu leen di wax ci xeex Covid 19 bi ñu man a am xel mu dal buñ ko àndee ak gouvernement bi ndax nit ku xiif loo koy wax pour mu pour mu dégg ko dana jafe na biir ba am la ca nekk su amee soxla man koo faj loolu mooy rendre plus efficace la lutte ndax dañuy approprier wu mu ñoom population su boobaa les mesures de protection et les gestes barrières ndax boobu danañ am xel nuñ ko defee ndax saa yoo demee di wax ak ñoom dañ naan ñun li ñu tal mooy suñu njaboot gi ñun dañoo xiif ak lekk naan lañ tal kon loolu la président Habib Diouf nañ ma wax leneen lu dul lii ndax soo demee ci dëkk bi moom ci biir dëkk bi danañ xam ne ils sont en phase avec le président ci donc noonu lañ ko mën a defee ci mesure yëpp ci jumaa yi jàkka yi aussi su ngeen ko xoolee décision bu président jël comme toile de fond dafay am le respect des règles te toutes les mesures barrières suñ ko defut kenn du fu jullee loolu leer na suñu mbokk Modou Modou yi faatu bitim réew aussi seenu ñëw du volte-face contexte moo ko laaj parce que xam nañu suñ ñëwee risque de contamination dootu amati te te amut ndax nit ñaa ngi fi faatu ñu leen di toppatoo ñu leen war a toppatoo kon foofu aussi si motivé au niveau scolaire ñi nga xam ne ñoo dellu ci classe bi ñu néew lañu. te ñooñ bala ñoo dellu aussi conditions yi danañ ko danañ ko teg ba ñëpp respecté kon à toile de fond ba tey ji ñi ngi xeex jàngoro ji di ko rek di ko def ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee soo jëlee loolu nga dem ci marché hebdomadaire foofu aussi du ay marché régional marché départemental la loo xam ne ña nekk ca biir département ba ñoom ñooy daje ñoom kese pour mën a jëndante jaay ndax xaari mën naa yor tey benn bëyam benn kiyam dem mën ko faa jaay am lu mu dundalee njabootam loolu dana baax ci ñoom xanaa yow mi toog Ndakaaru ci say climatiseur wala feneen li ko critiqué yaa ko mais ñoom dañ ko critiqué parce que xam ne yàkkamti woon nañ ko lool te danañ sant nañ ci président gërëm nañ ko ci noonu ngay jëlee tamit ci yeneen marché yi nga xam ne aussi ubbi ubbi nañ ko dans le temps et dans l' espace loolu aussi pour permettre nit ñu gën a mën a am temps pour mën a écouler seen marchandise arrangé nañ leen bu baax te ci biir marché yooyu aussi le respect des des mesures barrières est toujours de mise dañ ko war a def kon nit mi gravité amu ci au contraire président dafa def li mu war a def dafa wax li mu war a wax te nag may ñaax tamit nag sama mbokk yi ñu xam ne joxuñu ñu carte blanche un assouplissement n'est pas relâchement ndax lu tax nekkul relâchement mooy mesure bu président teg rek ne leen bala ngeen ko mën a appliquer na ngeen na ngeen respecter les règles barrières kon relâchement amul foofu te te tawat ji jaaxale ko gudd les autorités sanitaires ba fi may wax ak yéen cas contact yi mu ëpp cas communautaire yi kon la situation est toujours sous contrôle bi ci tegee mooy am yenn opposition yoo xam ne yenn nit ñoo xam ne dañoo nekk en mal de popularité bëgg di critiquer les choix du président la ou les décisions teguñ ko ci dëgg teguñ ko ci yoon ndax président su su defutoon lii mu def. ñaari problème la ñu am problème sanitaire ak problème humanitaire nit ñi dinañ dee xiif ci seen dëkk yi loolu président xam kon il a vu nit ki taxaw nag di critiquer te xamoo ci di def politique politicien ñun duñ la déglu wala ngi am prétention ne war nga am mën a waxal au nom des populations dangay dangay wax lu neex population bi ànd nañu président ci li mu jël waaye ñoom tamit ñu ngi leen di ñaax ñoom population bi ñu ñu respecter toutes les mesures ci deuxième point bi. ci Covid 19 bi ci Touba euh, li ci mën a wax rek mooy kaay yi ngi yokk communautaire nañ gën a góorgóorlu nañ gën a dimbale sëñ bi respecté règle d'hygiène yi def ko ni ko Mbàkke di defee ni ko Jurbel di defee ak ni ko Bambey di defee ndax loolu lool fan yii yëpp gis nañu ay cas amu foofu kon nañ gën a góorgóorlu Touba mbir mi ngi law sëñ bi waree na yoon bi xaayaan ku dëgg séeréer nee na ket képp koo xam ne bala ngay ñëw ci jumaa wala jàkka na nga respecté mesures yi kër docteur wax loolu mooy fooy dem ci dëkk bi na nga sol sa masque na nga respecté règle yi lii de sëñ bi santaan waruñu ñun waruñoo fexe ba sëñ bi wécc ci xeex bi te dafa mel di ci bëgg xeex di ci bëgg a nañ jàppale sëñ bi ci règle d'hygiène yi ci lépp ba nga xam ne balaa yàgg kenn tuddee ci Tuubaa di tudd ay ay ay cas communautaire wala cas contact mën naa ñàkk nañ jàppale suñu bopp jàppale sëñ bi jàppale président jërë ngeen jëf